salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalib bi ñu ngi leen di nuyu fépp fu a nekk ci jéggi sunu kàddu di leen gërëm di leen sant di nuyoo nag ci turu le maire Abdou ak mbooleem ñi nga xam ne ay adjoint moom liggéey bi ak mbooleem ñi nga xam ne ay conseiller lañ ci nekk ci commune Touba ci sëriñ bi dénk leen liggéeyu Touba bi. li nga xam ne moom nga ma laaj léegi ne lu waral euh, point de presse bi mooy euh, tontu ay wax rek ndax du yàgg du ñoo dégg. ci problème bu am ci marché Daaru Marnaan ñu dégg ci koo xam ne nii génn nañ point de presse wax lañ wax concerné daay euh, commune bi euh, comme nag ñun dañ fee nekk di porte parole commune bi war commune bi lépp loo xam ne nii waxal nañ ko ko wala mu war ko wax nu wax ko yu ñu déggee ay kàddu yoo xam ne neexu neexuñu te mu dal ci kaw commune bi kon ñu war a jóg tey ji tontu kàddu yooyu kàddu yooyu nag bokk na ci li nga xam ne ñi wax nañ ko ci marché bi wax ne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 ngeen def ko bu ngeen paree ñu fay leen wax ngeen ne mënu leen ko kon léegi damaa bëggoon jot la nga wax ma lan mooy gasoil bi man ma lijjanti ko jox leen ko ci diggante bi jotuma ko jotuma ko bañ dajawaat fii ci bureau Pape Sarr ma ma gisee ma ne ko maa ngi lay woo jëloo ma te woo nga naa la jot la nga nekk ci dëj man leen c'est urgent urgent ba ba ma la ko waxee mooy bëggoon a jël xaalis jox la jëgganti lu mat lu toll seen gaasuwaal ngeen def ko su leen xaalis génnee ngeen fay ma loolu laa naroon léegi nag boobu léegi ñëw mu ne ma loolu ba ma la ko waxee damaa nekkoon ci talof talof expliqué ma kon mu mel ne kon loolu lépp ku ci dem yaakaar naa ne taxawoon nga ngir lijjanti maire bi lijjanti la nga xam ne ma garawaay kon nag ñu xam ne ñi doon wax ak ñëpp ñu ngi leen di félicité di leen sant dañoo am naqar di wax waaye nag waxin tam booy wax nga seet li ngay wax lan la ñu ngi fi ñu wax ñëpp dégg nañ leen waaye ki nga xam ne gis nañ ko muy soxna suya na mu waxee ko jigéen ko di wax bu am responsable wax bu bu réglé wax bu yaru wax bu teggine muy wax joo xam ne am na solo ndax mbir mi dëkk bi dafa am yoon dafa am dafa am ay karti fa daaru mannaan kenn moomu ko ku may sëñ Cheikh ma Daba Sarr ne euh, sëñ euh, Mbacke Daba Sarr mooy ki nga xam ne moom la fa sëriñ bi teg moom moom lu kii ba ma wokk kër maam Thierno sëñ Abdourahmane jur ko mu yor dëkk ba yor baatu dëkk ba la nga xam ne ñu ko waxtaan moom lañ ko waxtaanal ba mu jëlee dëkk bi da koo dénk sëñ Modou Diop marché bi moo sëñ Koso jox ko ko Koso ak mairie bi nag léeroowuñ ci marché bi kon kenn ku jóg di wax dangaa jóg di wax waaye responsable marché bi moom jógul ndax mi ngi jokkoo ak maire bi mi ngi jokkoo ak bi te sëriñ bi ñun daf ñuy wax fépp ci tuubaa foofu mën a dékk la tàmbalee ci Daaru Xudus ba ci Touba mosquée ba fépp foo fi gis fu ci nekk daa am fu ko sëriñ bi dénk am kilifa fu ma nekk lañ fa war a wax kilifa googu ñun la ñuy jokkool di wax ak moom ci sëñ Mbàkke ba Sarr lépp wax na ko yónni na rakkam sëñ Ibra mu ñëw ci ñun waxtaan ma jokk na ma waxtaan na ma moom wax nañu maire bi mi ngi jokkoo moom di jokkoo koso mair bi toog naa mu jokkoo koso wax ko lépp loolu nag fekk na vendredi bi nga xamee ni ci lañ pare ba waxtaan ak borom benn yi ngir ñëw war a roñ la fa nekk lépp ci vendredi boobu dañ dégg euh, seen conférence de presse conférence de presse bi nag ñu wax ca ba wax ci lépp menacé ne fii ak su fekkee ne génnewuñ ko ñoom danañ ko buub sotti ko ci buntu délégué sotti ko ci kaw tëli bi. loola nag lan doon xaar ndax institution lañ yor mais toll na mairie kenn du ko bundu xataal.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 ñun nag doxewuñ ci pression dundewuñ ci pression dañuy liggéeyal Serigne Touba ka nga xam ne mooy Serigne Touba teg ca gox ba wax nañ nañoo moom loolu nag li tax defuñu koon moom lañ doon diglu ba xam tey la lewee ba xam kenn dana mën nangoo jël benn sar suuf suuf wala benn kam di ko teg ci buntu kër délégué wala nga teg ko ci route nationale bu boobaa nag doo ko séq ak maire yi ko séq ak ñeneen ñu rawal incha allah nag comme nag loolu lewee jàllee incha allah yaakaar naa ne lu topp ci lewee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 ca boobu ba léegi ñu toog yëfi maire yi moo demewul noonu doo xam ne dangay dem rek jël ni ma ko waxee mbir mi engagement lay am am fu mu jaar ba ngay jot xaalis ñi ko waroon def itam toog nañ di xaar seenub xaalis pour ñu war ko mën a def kenn du liggéeyal maire yi ba pare fayu avant maire yi da ngay liggéey ba pare maire bi fay la kon nag lii mooy wax ji nga xam ne moom lañ bëggoon a leeral ñi ngi sant ñëpp nag di massawu coono nag ñi nga xam ne seeni i place demuñ ca ak ñi nga xam ne am nañ difficulté boobu ba léegi ca xam ne mbir mi di suñu volonté waaye ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah